maa ngi jógee ba parcelle ter euh, croisement 22 mais bien vrai euh, gaaw na tuuti mais passe bee seer parce que bii du baadoole moo ko parce que boo gisee 500 22 euh, boo perdee 500 aller retour muy 1000 francs Je journée bi boo naree liggéey ah boo naree wàcc encore booy passe 500 500 500 mbaa di nga mën a lekk passe bi moom bu ñu xoolee bu baax a baax passe bi moo gën a dafa war a gën a yomb que yeneen kii parce que lii.

passe mon cher. Nous avons organisé une passe. La pression est bonne parce que la promesse est le confort et puis surtout la ponctualité. Ils avaient promis 57 minutes. Bon, 55 minutes, 7 minutes pile. En def. Bon, machallah, je crois que l'Iral ne continue ni quoi. Oui, mais quand vous avez fait des choses, vous avez fait des choses par petit auto. Si vous avez fait des choses, vous avez fait des

sant yàlla. ah bettee bi daal neex nag la def soo ci duggee su ma laa sa nga yegg si liñ ci bëgg yàlla na ko yàlla defal man Grand Dakar laa jóge dugg ci ñëw patal jënd si bagage pour dellu neex na bay bëgg a gaaw na neex na am na jàmm ci biir yal na yàlla defal jàmm niñ ko ubbee ni ñu ya yeggee ko bisimilahi rahmaani rahim ah seen la nag mais nan sant rek jar na ko daal ndax pour da nga ñëw mu gaaw nga ñuy jënd te delluwaat jar na lépp nañ yàlla defal jàmm defal leen jàmm yéen tamit ñu yeggale suñu sago bon bi aussi da ngay gagner en rapidité am na confort am na sécurité aussi accessible banlieue ak Dakar dafay xaw gaaw quoi ma ne am na confort am na rapidité quoi aussi am na sécurité aussi tu gagnes en temps bu fekkee da nga jóge banlieue pour ñëw en ville quoi vraiment amoon na benn encombrement bu ndaw rek waaw c'est dû au passage du BRT quoi ci fluidité bi mais bu ñu amee patience rek a après day baax quoi. non torop torop sax torop parce que man sama genre arrangé na ma quoi avantage la aussi ci dem ñëw bi daal am na sécurité am na confort aussi am na rapidité quoi. waaw mais bon xam nga ne luxe moom luxe noo ko jëndee rek jar na ko quoi aussi c'est abordable parce que cent tamit moo ci yaakaar naa ci kuy dem di dikk du dara daal par rapport ak bu fekkente ne da nga jëloon yeneen bus yi yokk ci 200 aussi da ngay participer au développement ba pare nga commodité am nga confort quoi. kon donc bu dee luxe rek loolu pour man cherul quoi yàlla na ko yàlla may ñëpp rek aussi avec le temps tamit ñëpp ñëpp am ko rek mais pour man 500 bon c'est accessible ah.